Alioune Pala Mbaye jóge fi Abdoul Aziz Ndaw ne fi ñoo ñëpp ñi fi jóge woon ñëpp nga xam ni ñi ngi am tur yoo xam ni tey manes na taxaw kenn ku ne jox la modèle ci senegal yow mi yaa leen bu fekkee waxante dëgg yow mi yaa leen ndax ñi me nga population bi ci li ñuy dégg am sant kuy politique ñi me nga nit ñi ñime nga li la état jox nga taxaw nu toogoo conseil municipal nga séddale ko ni ñu ko war a séddalee xool leen fu mu war a dem ñu dugal ko fa loo fi def fi la kon monsieur le maire monsieur le invité monsieur le conseil municipal de Mérina Dakhar monsieur le journaliste jàpp leen ni lii may wax bu ngeen yeboo bind ko xam ko dama koo xam dama koo wibéré à Kajoor kon lii may wax jàpp leen ni ku mel ni moom président de la république di président Macky Sall na jàpp ni ku mel ni ay meeru ñing su aman ñu ni mel ci département de aw nag ci région de Thiès et le li ma xam mooy dégg maam fi mu bëgg dina fa yegg kon la journaliste lu ngeen di bind na ngeen di xam ni tournée économique bii ñu def bañ na ko ba dégg maam yóbbaale wul benn dégg maam en tout cas koo xam ni da ngay animé Pape Samb wax na ko te fekke nañu démb ay nit lañu kenn ku ci nekk ñi toog fii boo jógee na foofu fanaani ci Kajoor ndax dëkk bu nekk am na ñoo xam ne tey lu fa xew man nañ koo régler waaye moom mii bu jógee dajale kajoor ñu daje nii ndax mën naa ni téeméer dëkk yi fukk ak juróom dëkk boo tudd nit a ngi fi dëkk boo tudd rek nit a ngi fi te kilifa la fa am na lu mu présenté mu ànd ak ñoom ñu àndal koo defal ñetti fan ci réew mi te bu doon wootee tey ba nëgëni ëllëg ba déwén ñu ànd ak moom parce que moo ko ji parce que li muy def gimiñ du ko laal parce que boo ko laalee dañuy defal ni laneen la dañuy defal ni laneen la waaw kon nag monsieur le maire monsieur le préfet de mairie Ndakar yow dañ lay beral cant li Fallou wax parce que nangu nga boot sa njaboot nangu nga soutenir sa njaboot nangu nga taxaw sa njaboot te loolu laa xam ci autorité administrative man waaye xawma koo xam ni nag en tout cas fu njaboot nga yëngoo nga nit wax sa bureau te doo lijjanti doo def dara bu yaa maire bii day ak dégg maam en tout cas ñii ànd ak yéen di population bi ne ñu ngi leen ñu ngi gërëm ñu ngi lay sant Pape Gadiaga ñu ngi lay gërëm. et vraiment de s'enquérir de la situation parce que nous euh, ce qui freine le développement de ce pays c'est l'éducation tant que les les jeunes les enfants ne sont pas éduqués on ne peut pas prétendre à un développement euh, de ce pays demain et monsieur le maire vraiment s'est investi sur 29 écoles euh, 22 sont clôturées Yallo et, et toutes les, tout, tout les, tout, euh, toutes les écoles sont dotées d'ordinateurs. Ce qui ne se trouve pas dans... Moi, je suis dans 18 communes. Et je commence par la commune de Meké. Il n'y a pas un seul enseignant qui est doté d'ordinateur issu de la mairie. Moi, je ne suis pas politique. Et je le dis ici. Je suis témoin et je le dis. Et si on trouve un maire qui comme ça, on ne peut faire que genre, euh, de se réjouir de ce maire et vraiment de lui souhaiter une bonne continuation dans cette mission. Parce que vous, vous, vous l'incarnez. Vous avez di demander les populations de vous donner leur voix pour que vous représentez ces populations. Et vous l'avez fait. li ma doon wax rek ci gàttal mooy que ni ñun day sant nañ maire bi ndax tey. nga xam ne suñu maire bi tey tànk yi mu jóg yi tànk mënul jóg tànk yi ko gën a faratawu tey. ndax da ngeen di fàttaliku am na benn journal bu ñu doon wax benn roman bu doon wax l'enfant noir l'enfant noir Camara Laye bi nga xamante ni papa ji dafa dem rek la pour ñu dem di lijjanti pour mu dem France ñu fekk yaay ji ci wolukaayu ñu ne ko xale bi comme dafa am niveau il est doué day dem France yaay ji dafa kànd ci gën gi ni si c'est pour le départ di petit en France inutile de m'en parler loolu la wax ah kon kooku xamuloon lan mooy njàng bu njëkk mais nag Sénégal di dox. kajoor di dox réew mi di dox ba nga xam ne tey ku jàngul tekki woo dara boo tasee moom hôpital yaa ko naa fii la neurologie ne boo tasee moom feneen yaa ko naa fii mooy porte centrale bi xamuñu sax piéton ak foo xam ne fii yoonu oto ci ne kon ku jàngul muusul kon tey boo jógee sillonné sa commune monsieur le maire di xool njàngatum xale yi di leen dabat di encourager enseignants yi def nga sa valeur te lii moo taxoon ñu tànn la mat nga lañ la tànne woon mais félicitations les plus sincères léegi may wax sama mborom yu jigéen yi di leen wax ne leen lii nga xam ne jàmbat nañ ko ci yoon yi bëggoon na maa jël parole mais temps bi permettre wu ma ko ndaxte booba yoon dafa xat ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci jigéen ñun ñun ñoo war a jàpp suñuy doom di leen sart di leen sëkkatal di leen yóbbu ci école bi ndaxte peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca mbagg am na xale boo xam ne bi dañ ko jëlee barki démb ci foofu ngay wax foofu directeur d'école looyeen bi wax mu ñu indi ko kër awagasama mu ñëw tëdd boo Birame njaay wóor na ko ma ñëw fekk mu tëdd ma ne ko yow xanaa jàngoo mu ne ma dama doon def CE2 ne ko ban rang nga mu ne ma sixième ma ko jógal mu jóg ma dem ci Pape Thierno yóbbu naa ko ma ngay jàng ndax man munu maa seet ku jàngul fu ma ko fekk muy sama doom wala muy doomi keneen dama koy def mu dem jàngi boo gisee xale yi ma yor ba ci sama càmmee Cheikh ñaan ku baax ci man jël doomam wóolu ma jox ma ko sama jikko moo ko neex bu doon loolu duma ko jox bu gisee ñu geer rek dafa ñëw kii toog jàngu rek ma daal di koy fekk fa mu toog ak yar ne ko acca lii moo tax ñu indi la fi raxasloo ma la baleloo ma la ay not laa la laaj te boo ko amul dinaa la dóor bala nga egg sa papa naa la teg sur les rails samay doomu càmmiñ maa leen yor maan Diaw mi toujours dafa may apprécier ci xale damay summi ko geer ak ñoom sor short sama doomu càmmiñ ma maawoo moom mësul toog te jëlu toujours il était le meilleur élève de l'établissement du CEM de Kell bi ñu demee ba nga xamante ni dem nañ brevet moom c'était le meilleur élève parmi tout kon man njàng dama ko war maal ndax damaa xam ne muy jariñ ndax njàng mooy valoriser doomu aadama ci éducation la bokk njàng alxuraan baax na njàngum tubaab baax na meneen njàng baax na mu ci bën am njariñ kon lii nga xam ni tey mooy suñuy tànk dañuy ñaan yàlla yàlla fulal la ko boole la ko ak sous-préfet Pape Gadiaga moom ñu ko ñaanal dañu koy bàyyi ak yàlla te di la ñaan nga ñaanal nu ci sa baatin doo dolli nu ñaan ci sa baatin defal nu ñaanu xaas dinu lim ciy per ndax yow sang nga kon nag ñoo ngi lay tàllal suñuy loxo di la ñaan nga ñaanal nu ci sa baatin Gadiaga ñun ñoo ngi la koy ñaan la foofu laay pare di leen ñaan tànk yal na ko yàlla ful ba muy tànki barke te nga xam ni tànk nag tey soo dox tànk yu ko gën a farataw ndax lii di santé lii di éducation moo fi ne ndax boo jàppoon nen bi bés ko ci tuut bi doo bëgg élève suba boo xam ne bi da yori école mais da nga bëgg na bés boo xamante ni dem nga ba wéer keneen jël l'élève waaw loolu moom nga bëgg te loolu yàlla dina ko def ndax jàpp nga ci yàlla la sunu borom jàppale amin defee nga jaar fa jaar nga jaar fa nga jaaroon te xam ne fa nga jaaroon dafa rafet ndax bu rafetuloon duñ la ko diis kon askan bi dañoo am yaakaar bu mat sëkk man bi ma àndeek yow trois jours yi rëccuwuma ko parce que ñun ñu ngi ci domaine sanitaire lépp li ñuy yëngatu mooy santé monsieur le maire yaa ngi ci éducation yaa ngi ci santé bu la neexoon nga romb poste santé yi mais defoo ko dangaa xam ne avant tout c'est la santé ku weerul doo jàngi moo tax nga jaar ci eh, santé dem ci éducation en tant que nag président de l'union des des mutuelles du district de Mekhe damay wax ci mutuelle de santé yi monsieur le maire mutuelle de santé yëpp tàllal fa taxaw nañu tàllal seen loxo fas yéene pour nga dimbale leen ndax askan bi gis nañu njëriñu mutuelle yi daw nañ wuti carnet dem nañ ci hôpital yi mutuelle yi gis nañ ne factures yi cher na lool lool sax ba tax na loo ci mën rek monsieur le maire ñoo ngi taataan suñuy loxo te di la ñaan loo mën ci jàppale mutuelle de santé yi nga jàppale leen parce que mën nga ko éducation nag man de sawar naa ci lool parce que xam naa ne 94 laa génne école arabe dugg école français 94 ba année bi 2016 mosuma gis képp koo xam ne rek ci politique nga yëngatu nga teg sa tànk ci école ne da ngay nemmeeku école yi bu leet ba ma juddoo ba tey maa ngi koy doog a gis te nag loo xam message boo xam ne transmettre naa ko envoyé naa message bi barke démb ba ma yeewu la envoyé message bi mu dem Diouroup directement fa ma juddoo ma ne leen ñoo leen gën maire bés bu ne ma wax leen ko tey tey jii laa ko gën a firndeel xool leen ci Facebook bi dinaa ko publier monsieur le maire a ngi ci école yi ci mbéri na ndaxaar di wër école yi kon na ñaar fukki at ak ñaar maa ngi ci administration territoriale mais je peux dire pour la première fois. Hmm. très sincèrement que pendant trois jours may accompagner un maire en tout cas dans sa circonscription pour que muy def ay visites économiques je le ma de manière la sincère trois jours durant naa koy def peut-être benn fan wante ñetti fan yu teglante ma ànd ak moom ñuy def tournée boo xam ne kii day dem pour saytu li nga xam ne lii mooy euh, feebar mooy war a demal kanam commune bu la première fois ma koy def avec monsieur le maire ay maire ñun et vraiment man jéggi la naa ci xam-xam bu rëy que cela m'a permis encore une fois de redécouvrir les réalités du milieu pendant trois jours et te occasion la bu mel bu bu rëy encore une fois monsieur le maire que yu mel ni bu amee hmm. que ma lance un message émanant des plus hautes autorités de l'État hmm. benn bi mooy wax nga ko léegi ci carte d'identité CEDEAO carte d'identité à puce nga xam dañ leen di coupler avec des cartes d'électeurs très très bientôt Médina Dakar sera doté de tout les matériel nécessaire et koo xam ne kii am nga fukki at ak juróom-ñett maanaam am nga âge électoral incha allah boo ñëwee dinañ la defaral carte électeur te boo bëggee dañ la defaral carte d'identité boo buggee ñu booleyaale ci carte électeur et à partir de cinq ans aussi nañ fexe nga am carte d'identité nationale vraiment loolu bu population bi jaaxle te ñun dinañ ci jóg am na lu ci bëri loo xam ne li aussi occasion la bu mel ni bu amee que ma ñaaxaale ko mooy les conflits entre éleveurs et agriculteurs mmh. éleveurs yi mooy sàmm si nañu xam ne fi nekk ne jusqu'à présent ñoo ngi ci nawet bàyyeeguñ jur gi pour mu war a ruur tool yi sàmm si nañ téye seeni jur béykat yi aussi li ma leen di ñaan mooy nañ gaawantu ci tool yi mboolem loo xam lii mën nañ ko yóbbu ci kër yi nañ fexe yóbbu ko ci kër yi balay dat yi nga xam ni monsieur le maire dinaa di concertation ak ñoom ñu jël ay dettes yoo xam ne dinañ fexe ne dettes yooyu bu ñu fa yeggee ñu mun a fexe que jur gi yegg si ci biir tool yi. et beneen bi mooy le président de la république son excellence Macky Sall monsieur le premier ministre et l' ensemble des membres du gouvernement ñaan population sénégalaise mooy ñu ànd ak yar ak teggin dans la cohésion dans l'unité dans la solidarité pour que ñu construise suñu réew. te li ma gis fii kat ci Médina Dakhar man duma ko rus a wax dinaa ko wax mooy c'est une cohésion c'est une entente c'est vraiment une union parfaite te lii yenn nekk loo xam ni day sax ci biir et en tout cas monsieur le maire au non deme mes supérieurs monsieur le préfet du département de Tivaouane monsieur le gouverneur de la région de Thiès maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi nga xam ne ci permettre nañu